Bachir qu'est-ce qu'il est devenu lan la la manal à chaque fois su ma musaan a jóg intervenir d'une manière rigoureuse ci éducation donc ko daan empêcher boo yoree sam kuy su màggee yow lay njëkk a mais daan na la na la c'est ta responsabilité il faut l'assumer kon yow El éducation éducation Bachir kon mën nga bëgg a xëpp échec am dama lay laaj lan nga def gis say doom mission bi yoon dafa gën a spécial bëgg naa ngeen xam ko bu baax gis nga yaayam dafa feebar feebar bu métti des fois ñu yóbbu ko tugal mu dem faju ji nañu sacrifier suñu bopp takk suñu biir ku nekk jël sa cër jox ko ko moom mi sa doom dem agressé nit sàcc ko jël saagam këf ko jël alalam yëkkati ko ñëw indil la ko teg ko ci sa loxo bi nga ne danga koy lekk mu lew. dama bëgg tey ku pare pour ñëw ñu dóor dóor bi. nga wax ma lu leer ne pare nga te seetlu naa ne lingeer depuis mu commencé di ànd ak yow toogatul ci kër gi lu mu mësula def lu mu mësula ñeme sama papa da daan bundu xataal sama yaay di ko dóor di ko saaga suñu kanam mais jo dama ne woon foo ñu gisee ñu taxaw ñu wax parce que dafa bëri ay bagages yoo xam ne mu may xeeñ di ñëw amul lenn lu ma ci neex booy cuuj jantal booy la yàgg nañ ko jox ay mission mu koy assuré mais boo gisee fan yi muy jalgati di agité wu c'est parce que booy nii moo koy ruux di ko tegal moo tax booy bi di agité wu di tëb ci kawam. man xoolal li ma samp simpi wu ma lu leer laa lay tegal bu dee gerteewul rek booy tiitu ma leen